lu tax sa sa leader. sa patron Waly Balago Seck. waaw laata jóobe dégg baay jor de ba dégg. waaw kuréel faale dégg Maria may si biige may si biige maar ajub naan ma des sa ndóob jar ka def jino jin jin faramareen. li may lii def nii du loolu dama doon mënoo ko defal magasin àll. Waly sama papa la. <laughs> papa maa lay char. li nga def ni neex na lool. waaw sa xol bi si kontaan na. lu tax doo ko doo ko defal Macky Sall. Waly papa maa nuyu. Euh, Waly Seck sa leader lu tax lii nga def nii. Lat Diop Dëggan Baay mi ngi tàgg. bien naa ko defal Waly mën naa ko defal Macky Sall. Sall ngaari lam tooru Bourguére. waaw defal naa ko. mais nice na. waaw man placé naa pour def lu ma neex mais yow yaa placé pour def lu la neex. <laughs> peuple. Hmm. danseur du peuple. président du peuple. boole ko ci. ñu war a mais da ngaa waroon kaasal peuple bi kon ci lii. dégg ma dégg ñu war ànd bu nu doon tey dem Côte d'Ivoire. Mm. dañuy taxawal sénégalais yi. bu doon Zaïrois la duma ko défendre mais sénégalais la. Mm-hmm. sàll ngaar yi mu baax mi. Mm-hmm. nit du matal lépp mais jàmbaar la fils. ndeysaan jàmbaar la de. ndaanaan la dëgg la. xoolal dama dem Turquie. Mm-hmm. Turquie laa fente woy bi. ñi ma gën a chargé mooy sénégalais yi nekk foofu nag. ma wax la ko tey loo loo musul xam. commerçant yi nekk foofu ak commerçante yi ñoo ma wax ne ma président Macky Sall moo tax ñu am këyit te élection yi passé ñun voté luñ ko. Hmm. dañ ko regretté. maanaam lu tax am na ci benn sama ñetti copain ba ñeent yu honnête. non hmm. ñun est-ce ñun li ñuy wax gore ñun moom ñun moom ñun moom danoo gore di danoo juum. Hmm. parce billaahi moom moo tax ñu am këyit moo tax ñu jox ñu këyit fii. moo ñëw dajale gars wax wax ak état bi wax yëpp ban jox ñu ay këyit. te bi ñuy dem voté voté luñ ko. Hmm. ma ne ko lu tax mënu mën a doon juum mais loolu xoolal président loolu mu def. Hmm. fexe ba sénégalais yi nekk extérieur tey même ñu amul këyit wala amuñu moment bu ñu ñëw mën a ñëw réew mi ci liggéey. ñu nekk ci conditions yi bien quoi yoruñu kii. Hmm. dafa dafa da dafa créer ay fonds yoo xam ne dañ leen di lebal. d' accord d' accord d' accord. cent mille logements yi. ngay joxe quatre vingt mille wala. soixante-quinze mille. Mhm. bu ma tey dix ans yaa ko moom. super dimbali néew di doole yi. Mhm. képp kuy néew doole mën nga waa dem am sa kër. moo ko créé d'accord d'accord hôpital ba mu def Touba. Touba Mbacké. Mhm. dëkk Xaadim Rasul. nga yaakaar ne loolu dina niil. dem dem ba dëkk Serigne Touba nga nga créé fi hôpital nga yaakaar ne loolu dina niil. loolu tamit xam nga mu murid dañ ci kontaan ñun ñi dañ ci kontaan. dëgg la murid yëpp kontaan nañ ci. dëgg nga waaw dëgg la. Fuuta mu def fa hôpital Sédhiou mu def fa hôpital. lu baax loolu mu def. mais dañ ko war a saluer wax ko. keneen ku ñëw nag boo defee lu mel noonu dama lay saluer. keneen ku ñëw bu ñëwee nga def nga def lii moo ma wax ko ca kaw. mais bàyyi leen ku tagg njiitu réew wax ko lu baax li mu def ñu ne opposition nga ñu ne da ngaa war a waroo waroo tagg njiitu réew mais ñun bu ñu taggul suñu njiitu réew kan la ñuy tagg ñun ñoo ko fal. Mhm. ñoo koy fay bu defee lu baax duñ ko saluer. dama koy sargal ndax dafa dama gis mu def lu baax. d' accord moment bi nga ko defee la ñëpp di moo tax mooy. di rek moment li mooy di coow rek d' accord daanaan dëgg wala wala as dëgg. Mhm. da nga koy fekk ci moment bi mu gën nekk ci ay difficile. te man gëm naa ne nekkul si nekkul si nekkul si ay diffi difficulté nii. d' accord Ameth mooy ndaanaanu ndaanaan yi. Ameth ñoom ñëpp mooy seen ndaanaan. quasi totalité sénégalais yi di bañal président de la république son excellence Macky Sall. waaw. góoru Marème. waaw quasi totalité yi yëpp di ko bañal. troisième mandat yow ban gis-gis nga ci am. non man de damaa ci ay c'est que man dama dul booy man damay wax lu ma xam wax lu ma wóor yow xamoo ci dara da ngaa rii lamine di wax nii rek affaire ah, ay troisième mandat fond ba xamoo ci dara da nga rii lamine rek te bari nga ci morom fils <laughs> sama <laughs> barki sëñ Bamba ñi ñii bu bees bi <laughs> ba pare wala xam-xam ba pare bëri rëndoo gi dëgg xamoo ci dara xamoo ci troisième mandat valide Barthélémy Dias dama ko mës a dégg mu toog ne xanaa xamoo Ablaye Wade amoon na droit am troisième mandat ñoo ko ruubee rek Barthélémy Dias moo wax loolu barke yonante Yàlla Muhammad mi ngi ci internet bi mu ne Ablaye Wade amoon na droit am troisième mandat mais ñu ñoo ko ruubee rek ñoo ko def lii dégg nga dégg la Barthélémy li li mu wax. ndax kon wax ni tamit du du ruube sa waaye. xaw ma ne astafurlah wóoru ma yow xamoo ci dara waaw yow xamoo ci dara. xam nga loi bi loi bi def na nul eh, dama la a eh, wax eh, comme li nga xaw ma ci dara papa ñun tamit jàng na yow xam nga ni sa jàng na yow xam nga loolu papa d'accord nga mu nekk ci wala mu ngi ne sew ah loi dafa sew de waaw d'accord nañ toog ah. foofu xam naa li ngay foofu loi dafa sew de d'accord amul problème léegi sa leader Wally Ballago Seck mhm. nañ ko fan yi mu nekk tournée mais ñaari waaw mu dem tournée waaw ah, ñaari dat yu dem ci ñaari dëkk gisuñu la ca lu waral loolu lu lii ma def nii Macky Sall moo tax demoo amee tëgg damay dégg lu rëy li ma def ni waaw Macky dafa rëy nag Macky dafa rëy waaye lu la lu ma ciy wax <laughs> waaye daa ko <laughs> yow émission bi na fi na jeex ah Ahmed ah, ah. Eh, na fi yem lu tax daa kii yow li nga wax rëy na yow sa patron ne la kaay liggéey ah, eh, Ahmed eh, rakk déglu ma yow li nga wax fils yow li nga wax ma hmm. liggéey fa ay ati at waali fekk ma fa yàlla dogal mu mu nekk njiit la man nangu ko accepté ko mu fekk ma fa fekk fa ma baayam di ma fay may dem ay tourne avant que moom di am sumay business di ko dóor avant que moom moom mu am ay business am di ko dóor di dem dóor yi wala dem mu fi Amérique ñaata yoon woyeek ay nit ñun ñii ñëpp ñu apprécier loolu nangu ko ñun dañ ko bañ wala soxorul de. Mm-hmm. sama droit laa nekk damay liggéey sama album am naa droit. liggéey sama yëf te terewul maa ngi raam daan. est-ce que amoon nga ci autorisation may ma déglu ma. bi nga dem defi lii eh, déglu ma affaire du ay affaire autorisation ak droit la damaa am droit toog liggéey sama album sama single surtout bu ma ko defee sax ci way président de la république bu Sénégal. Mhm. caméraman bi doon tourné clip bi waalee ko woo ale ko woo ma ne ko Mauritanie dem leen damay tourné damay yeggali affaire bi amul benn problème dan maa fay ko Suède bi ñu dem may tourné waat clip ma yeggali clip bi bi ñu ñëwee dan maa fay sànq nii avant ngeen a ñëw hmm. la yónni booy Moustapha mu indil ma benn ensemble veste bu ma indaaleel barki yonent yàlla Muhammad billaahi wallaahi léegi laa ko dugal fii nga naan ma ay boo waxatee loolu dama lay dóor ku ah. sa papa loo ma def garab baal naa ko alors papa kontaan nañu. te amal droit sañ-sañ ak ngor ak dignité ci ki ngay liggéeyal am nga droit di def li nga war a def ci ngor ak dignité. Mhm. ak respect ak respect. du waaw. ah foofu laa rek foofu kontaan nañu mesdames messieurs très chers internautes ce fut un eh. immense plaisir ñu dalal la man ak moom nag sama papa la ay at ba at la def émission moo tax bu ñu def émission dafay neex mais papa kontaan nañu sénégalais li ñu bëggoon xam xam nañ ko maa ngi gërëm ñu bàyyi la nga waaw tàggatoo waale sant ñëpp di ñaan yàlla lépp lu ma ci wax ci lu ma juum mhm. nit kese la mhm. maa ngi ñaan sénégalais yi jéggal ma ko mhm. te ñu xam ni tamit li ma def war na képp kuy sénégalais ndax tey président Macky Sall ku mu woon nga ku mu ñëwoon sa kër nga yaatal ko ndamoo ko ndax njiitu réew la yàllaa ko tànn du dëkk eh, boo xoolee tey coow li muy bari yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp am na opposition yoo xam ne bi leen Macky Sall wooyee danoo dem wuyu ji ko dugg biir palais nuyu ko reetaan ko kaf moom bari na ci waaw ah mhm. kon nag foofu lañ toll parce que njiitu réew du ay caaxaan mhm. jàmbaar la li mu def ci réew mi bari na ma gis ko moo tax ma wax ko yàlla na ko yàlla jàppale sàncam yi mu teg ak li mu bëgg a yeggale ak li mu yéene Sénégal mhm. yàlla kattanal ko dooleel ko ko ba mu mhm. yeggale ko ko ci jàmm di gërëm Sénégalais yëpp di baalu ñëpp ax mhm. yàlla defal ñu jàmm defal ñu sutura Sénégal vive Sénégal ca kaw ca kanam ci lu merci beaucoup mesdames et messieurs pris du temps de nous regarder maintenant il est temps de donner du temps aux autres paradigmes en attendant je vous conseille d'aller vous abonner partout sur nos plateformes digitales YouTube Facebook Instagram mais surtout www.diaspora221.net merci beaucoup ciao à toutes et à tous la prochaine.